mbokk ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd geeg topp gi seen site numéro un de l'actualité sur mobile ànd kook ay naataangoom ci yeneen site yi fi teew tamit bokk na ci Dakar Instant bokk na ci Dakar Midi ak euh, Actu Buzz TV ñu ngi fii ci pikin li nu fi tax a ñëw nag. mi ngi jëm ci wàllu combat gi nga xamante ni askanu Sénégal boobu ba tey ñu ngi koy xaar ci diggante Ama Baldé ak ki ñuy wax Modou Lo bu Parcelles Assainies démb nag nekkoon nag seen premier ndaje lu ñuy tuddee maanaam face à face waaye nag dafa am lu xew ca face à ba dinañ ci dikk ak ñi nga xamante ni ñoom lañ nar a sëkkal waxtaan wi ki ci gën a fës di chargé de communication écurie Pikine Fallaye Baldé mi nga xamante ni tête de file bi moom mooy Ama Baldé moom la ñuy jox kàddu gi mu dikk ak ñun ci li sabab tey jii ni ñu fas yéene jàkkaarloo ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy teewlu par rapport ak xew xew yi nga xamante ni am na démb kon sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk internet ci li nga xamante ni nii moom moo xewoon démb ci premier face à face gi nga xamante nii moom moo war a am moom moo waroon am ci diggante Modou Lo ak euh, Ama Balde bu écurie Pikine Falaye Balde malheureusement nag mbir yi dafa avorté lan moo waral avortement bi ak lan moo waral tey jii ni ngeen saisir tey jii ni taskatu xibaar yi fas yéene jàkkaarloo ak askanu Sénégal ngir indi ci ay leeral. asalaamaaleykum. ñu ngi nuyu mbokk internet yëpp di ziar ñëpp di masawu ñëpp coro nag di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di wax ñëpp yàlla yàlla boole jégal balaa ñu commencé nag dañuy jàll ba pare ci corona bi ñaanal doomu aadama képp koo xamante ne ja corona bi jàpp na la yàlla saafara la yëkkati la ñaan borom subhanahu wa taala corona bi génn Sénégal génn ci àdduna lépp. di amati fi romb tamit képp ku sa bakkan rek yal na yàlla xare àjjana. waaw leen nuyu leen ziar bu baax. voilà donc boo ñu mënee fàttali tur wi ak taxawaay wi nga am ak présenté ñu tuuti rek maanaam yéen ñu ñu fekk si fi ñu leen fekk ak écurie bi. waaw man maa ngi maa ngi tudd Vieux Vieux Ndiaye chargé de communication de l'écurie Pikine Falaye Baldé ma ni ma suñu naataango yi kii tamit ñoo bokk communication ba tudd Malick Sarr donc mhm. Ibrahima Thiam chargé du marketing mhm. toog euh, toog ak Chicol le commissaire aux comptes. toog ak kii na mooy président secrétaire yi. waaw gis nga démb loon démb moo nekk foofu di yëngal ko waa kii la bon mooy bokk commission marketing. daañu ñëw suñu ñaari suñu ñaari gàllankoor Malick Ndiaye ak Bouna. di di jaraat gars yi baax a baax a baax a baax. voilà donc tey ngeen sabab jàkkaarloo ak askanu Sénégal à travers presse bi. Euh, lan moo waral tey jii nii ngeen bëgg indi ay leeral ay précisions ci li xew démb. waaw li xew démb ñëpp ko gis avant tout d' dañuy préciser. ñun dañu jox une convocation en bonne et due forme on nous a convoqué à vingt la ñu woo pour ñu commencer jàkkaarloo à vingt une heures ñun à dix neuf heures trente quitté nañu kër gi pour dem ci milieu bu ñu woo muy Sen TV ama nag mbër la mbër bu am ay supporters supporters yi namoon ko loolu nag macha allah mu ngi génn lool kon démb ñu ko gunge yëpp ay supporters lañu TV moins à vingt heures pile a dugg na ci biir locaux yi nga xamante ni fi la ñuy waroon a defee suñu jàkkaarloo man demee toog na ménage leen di addu baaxum toog na Jules di di di frère am di coacham toog na ñun on mais secrétaire Ama Baldé nañ si biti di surveiller oto bi noonu Ama Baldé donc ñun su pro suñu pro suñu programmation lépp jaar na ci woon alhamdulilah léegi nag qu'est-ce qui donc ñun mënuñu accepter kon ñu convoque à vingt heures ñu ñëw à vingt heures toog fa vingt heures vingt une heures vingt deux heures vingt trois heures de temps gisuñu Modou Lo dégguñu ko man de très sincèrement maa ngi fa woon maa ngi woon si biir salle maa ngi woon si biti mais man de wax dëgg yàlla gisuma ko te it ñu ma àndal ñëpp kenn mën na mën a gis na ko la ko laa mën a gis ma ko donc mbër mi mënul entraîné yi ñëw sonn ñu ba toog si benn milieu de vingt heures à vingt trois heures mais kon affaire bi kan lay jeex on nous a convoqué à vingt heures depuis de la face à face vingt et moom ñëwul ñu qu'est-ce qu'on doit faire dañu laaj nañ la ko donc dañuy dañuy ñibbi mais balaa ngeen doon ñibbi euh, kii nga xamante ni moom moo leen woowoon te mhm. promoteur bi te tëgg combat bi mhm. ndax jot ngeen am discussion balaa ngeen jël seen mesure boobu noonu di mujj indi avortement bi ñibbi dama leen leer sa promoteur bi mhm. sax Ama Baldé ko fa jiitu promoteur bi mu ñëw si salle bi fekk Ama ñëw na pour vous montrer que ni ñun fii au niveau de l'écurie Pikine ñun bëgguñu sax ay ñu ko fekk à vingt ñu ñëw ay ay vingt par respect à la population sénégalaise par ak ñuy seetaan toog ñu xaar ndax ñuy seetaan ay kilifa toog seen yow fajar dem julli ji ñu yow fajar dem liggéey donc ñooñu ñu xaar lu war a teel a commencé vingt une heures ñëpp ci lay tëdd ñu toog ba vingt tamit ñi ku ñu jàkkaarloo ñëw non mais dañuy ñibbi promoteur bi moom wax na ko ci ci ay déclaration ne ñun ñoo ko fa jiitu ñun ñu ko laaj ñoo ko jiitu foofu léegi nag problème bi mais sëñ bi suñ toogee de vingt vingt heures nag vraiment ba vingt trois heures trois heures de temps ci àll ñu toog ci benn place ci xaar ñëwul ñooñu a pris nos ñu ne dem ñibbi Ama Baldé nekk mbër mu yaru am kilifa ànd ak ñun dem ñibbi. ngeen di ñibbi lan moo nekkoon réaction promoteur bi. xam nga ndax tàggu ngeen ko ne ko finalement comme li ngeen li ñu waxante wu yéen sàmm leen ko te ñun sàmm leen ko ñu ngi ñibbi. xam nga promoteur bi ba mu fay jógee était présent ba Baldé bi kilifa Ama Baldé ñoo ne na ko ndik ñu xaar nañ ba 23h 21h nga xool lay commencé ñun mëntuñu xaar te bien avant loolu man personnellement j'ai appelé Jules Balde 22h30. da ko Jules ah ma li nga ko waxoon heure bi répété passé na bu yàgg est-ce que duñ dem mu ne ma non comme que Luc bon kilifa la nee nañ 30 minutes su 23h may jotee te ñëwul. ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu kii leen. Mhm. après après après après ñu ma ñu kii leen ñu ñu ñibbi. loolu loolu loolu moo tax Jules jël jël décision ñu ànd ñi <laughs> defe naa Jules Balde moom mooy <laughs> yegg si noonu sax di coach Ama ñu koy nuyuwaale de kon Jules Balde yow nee euh, àgg na ci promoteur bi ne ko kat la ñu waxante. ne. man fekkee ma ko. wax maa ngi toog si salle bi. voilà comme Jules Balde egg na peut-être moom dinañu ñëw leeralal la mu waxante ak. Euh, ki nga xamante ne moom mooy Luc Nicolaï ndax lépp dafa war a leer donc beneen point bi voilà waaw beneen point bi moom mooy euh, gis nañ ay série de violence mhm. yi am ci biti mhm. coow li bëri na ci ndax arène bi euh, tëjoon na ay at presque li ko waral nag dañoo nekk ci contexte bu ko xaw doy war muy mbas mi mhm. euh, saison bi tijji nit ñi am yaakaar xëy na la daan yàq làmb jàpp nañ ni nous sommes assez responsables pour bañ cee delluwaat série de violence yooyu am démb ndax yéen da ngeen ci am responsabilité yéen écurie Pikine Falaye yi noonu te bu la ma tax mu neex ma amul kenn journaliste si yéen je vous prends à témoin mhm. amul benn journaliste mhm. bu fa nekkoon mhm. bu gis kenn ko ànd ak Ama Baldé yor arme benn arme bu fa amul ku ko am dama mën photo yi man ma gis ko ñun ba ñu dem dañu ne booy na ñoom ci ak ci teggin te bien avant yi def nañu ay ay ay ay message yu bëri sensibiliser nit ñi léegi nag lu am mooy ki yor otoom wala ku yor motoom def ci essence am bëgg a topp tali bi dem ñun mun ñu ko tere mais en tout cas ñi àndoon Ama Baldé kenn du wàccoon benn nit bu nekk fii pikin bokk ci écurie bi di supporter Ama Baldé bu yor arme dèjà ñu fay créé loolu ton nañu très sincèrement donc ton nañu parce que yàlla parce que loolu amul. ñun ba ñu dem ñu gars yi dañoo lu rafet xëy ay parfum yu neex taal seen oto yu rafet dem toog gaare comme des personnes responsables il faut que tamit ñu wax benn affaire il faut que tamit gars yi di bàyyi di systématiser euh, jeunesse pikinoise bi Pikine ay nit yu yar fi am nekk. ay nit ñu ñu am dal ay nit ñu jàng gis nga violence boobu ñuy soog ñuy jéem a takkal non dafa war a arrêté dafa war a jeex ku xool fii nii gisoo fi kenn kenn kenn koo xamante ne mooy ko incorrect ñu nous sommes correct xam nañ li ñu war te ñu ngi ci amul benn supporter Ama Baldé encore une fois boo fekk koo koo xamante ne ñëw nga gis benn kenn ko fa yor arme ay jaasi a ay ak ay kii mais service d'ordre bu fa nekkoon y avait y avait combien de gendarmes y avait combien de foofu mais les problèmes nag mooy xam nga aussi wut lay dafa yomb wut lay yomb na ñëw naan foofu amul sécurité foofu am na sécurité à 100 pour cent mais yi dafa demoon xam ngeen am na sécurité Modou kañ li ñu ko ko wax Modou moo moo amul sañ-sañu ñëw. Modou ma bëggul woon ñoom. war mais mais nga baal ma euh, dégg nañ ñi nga xamante ni ñoo organisation bi préciser nañ ne Modou loo ñëw na. sañ bi waaw man de vingt heures. Ah, à vingt vingt a ba vingt ñu génn foofu. Modou Lo ñëwul vingt heures laa wax man ba ñëw foofu vingt ba vingt trois heures Modou Lo ñëwul Modou kan moo gis mën na la ñëw yow yow kon yow gis nga Modou Lo gis nga Modou Lo biir seen TV yow ah gisuma ko biir seen TV de waaye man yàlla dogal na dew ma foon démb kon lu may wax lu ne rek daf may wóor yéen ñi fa newoon moo tax ma lay laaj dama ne ah. je prends le Sénégal à témoin de vingt une heures de vingt heures à vingt trois heures amul kenn gis Modou ci la ko seen TV Modou ñëwul wala boog bu mu ñëw fekk ñun ñibbi nañ waaw li nu mel combat gi tamit dinañ ñëw ci beneen point mooy date gi xamaguñ exactement kan la euh, loolu tamit bëgg nañ tamit xëy na euh, yéen lan ngeen di am di leeral par rapport ak loo nga xamante ni ba tey promoteur bi préciser wuñu exactement kañ lañ nar a bëri te tamit est-ce que li nu mel ndax nar na dal xel parce que tamit ñu ngi jëm ci li ñëpp di xaar. waaye li ci gën a doy waar moom mooy euh, que ni euh, démb avortement am na est-ce que tamit lii dina joxe maanam optimisme par rapport ak fi ñu jëm. léegi waaw sax avant loolu. sa Xadim eh, Samb. doo ko interpellé directement. Xadim Samb Xadim Samb. mi nga xamante ni moo yoroon maanaam. Euh, microcentral bi démb. sunu papa suñu kilifa la. sunu papa la sunu kilifa la mais Xadim Samb suy wax na wax dëgg te yàlla tax amul benn yoon mu gisee ne Modou Lo ak Sen TV lu ko Sen TV amul amul ma sooy wax waxul lu am Xarim Samb amul benn instant mu gisee Modou Lo ci biir Loco Sen TV loolu amul. te mag sooy wax nga wax lu nga wax luy dëgg. amul benn journaliste boo xamante ne wane na fa ni Modou Lo ñëw na ci biir Loco yi loolu amul. mais Xarim Samb tamit mag la respecté nañ ko bu ñu ko jàll baatu bu ñàkk teggin mais nit sooy wax da ngay wax si diggante ak yàlla quoi. Modou Lo dugg ci Loco Sen TV ñu bëri ngay ñibbi loolu loolu da leeral. léegi euh, date combat gi defe naa am na li ngeen ci bëgg leeral ci ay précisions. sëñ bi. Ama Baldé athlète la chaque jour mu ngi ci entraînement lamb ji su bëggee su dimanche dimanche dimanche prochain dimanche bi di ñëw ñu bi ko bii unité 10 ko ko ñu mënuloo ñun dañu dem loolu wóor na. dama dëggoo ma bii unité 10 sama am na am na stade am na am na terrain. da ko leen ñu foofu ñun dañu dem bëri ñu xaaruñu pour combat bi jàpp date ñu on s'entraîne tous les jours dañuy liggéey chaque jour Ama Baldé athlète la. professionnel la. xam na lu muy def. xaaral fi ay ay ay jours ñun pare nañu. suba dimanche prochain su fekkee ñu toog ko ko ko ñu interdis. ñu ñu nañ nañ ñoo bëri si. ñun amul fenn fenn ñuy woo mooy te duñ dem. incha allah rabbi. ok kon mbokk yi yéen a ngi en direct sur Sénégo ñu ànd ak soon yeneen naataango yi fii ci euh, pikin ci camp d' amaa Ama Balde bu écurie pikin euh, Pikine Fallaye Balde nu ma ko waxee ngir ma gën ko leeralal ci ay éclairage ak ay précisions yi nga xamante ni tey seen chargé de communication bi bëggoon na ko leeral par rapport ak li nga xamante ni moom moo xewoon euh, démb fële na la ca Sen TV li nu bëgg a leeralal mooy ñoom lépp lan leen joxoon ci wàllu convocation bi mu di respect heure ñoom matal nañ seen waar waaye bi nu toogee ba 23h nga xamante ni. Euh, boob ba tey mbir yi euh, maanaam jàkkaarloo gi amul ci lañ euh, demee maanaam ñibbi waaye nag avortement googu tamit xëy na askan wi am nañ ñi nga xamante ne fi mu ne nii nee nañ loolu dalul seen xel ci ni nar a ñëw après parce que tamit loo xam ne tàmbaleegul te jàpp nañ ne war na neex. premier face à face Ama Baldé ñëw maanaam ci biir fi nga xamante fa la jàkkaarloo bi war a am tegunu bët Modou Lo. sëñ bi li ma la wax sànq lay waxaat. waaw Pikine. Hmm. ku ku ñàkk yar juddoo ku ñàkk teggin ji doo fi ñun si yàlla ñu xam suñu la preuve suñu mbër di Ama Baldé ñëpp nangu nañ mbër mu yarul ñun wan na ko di ñuy wax lu leer la ñun combat bi fii ba combat ñu koy jàpp amul benn supporter Ama Baldé incha allah rabi bi wane indiscipline wala wala wala wala violence civile la. Xaadim Gadiaga lan la wax ba ngay bëgg indi leeral yooyu. moom moo ay jaasi lañ fa suul waa Pikine nii rek waa Pikine te moom ñëw fa sax moom ñëwul li cool yi bari yëpp ñëwul na bàyyi écurie boobu muy politiquer. bàyyi làmb ji muy politique hmm. ñun ak ñoom xam nga lu ñu seq roi des arènes loolu lañ bëgg a jëli indi ko fii Pikine point sequñu leneen làmb ji Pikine la ñoo koy doxal ñooy feesal stade yi ñooy defal lépp defe naa ne làmb suulu woon la démb ba ñu ñëwee la lépp dekkiwaat dañu waroon ñëw rek mu neex ñu jàkkaarloo Sénégalais yëpp a ngi leen doon xaar mais bu ñu daw seen daw ragal seen ragalu bopp ba pare toog nag di coller motif ay nit ñun liggéey la ñu xam yar teggin kat yar ak teggin lépp ñu teg ko ci discipline defe naa ne ku ñëw fii fekke départ bi ba fekkuñu ñu foofu xam ne ñii ñu discipliné lañu defe naa ne tout est organisé lépp a ngi jaar yoon kon bu ñu yàqal loolu est-ce que foofu tamit du jaar nu lancer waale message sunu autorité ci wàllu sécurité bi waaye yéen i tamit nga xam ne yéen responsable écurie ngeen am message gu ngeen di jàllale par rapport ak amateurs yi par rapport ak supporters yi. en tout cas ñu ñu lancé ñun fii écurie Pikine Falaye Baldé ak teggin la ñu woote ak teggin ñun wooñu kenn ci violence mais tamit nag su Ama Baldé war a déplacé wu pour dem fenn dina ànd ak ak waa écurie am dina ànd ak ay doomu ndeyam loolu moom ñu ko tere si biir locaux yi on nous avait donné que quatre personnes. pour ñu dugg ci liggéey at baaxum moo dugg Malo Seras Ibou Faye ak at baaxum amul keneen ku dugg salle bi kenn ku ñëpp ci biir lañ dem. heure de convocation bi ban heure la woon. vingt une heure. mu ban heure la jàkkaarloo bi waroon commencé. vingt une heure vingt une heure ñu vingt la ñëw. maanaam vingt une heure la commencé yéen vingt heures. fekk na leen fa vingt heures fekk mooy. Mhm. problème bi la il faut ñu xam dara. Mhm. que démb très sincèrement man boog gisuma ko. su fekkee ne Ama Baldé ba ñu ñëwee dañu ci dal. ci yar ak ci teggin toog def ñu war def xaar seen mbër dugg waxtaan ginnaaw ñibbi léegi nag fekkee nag Modou man de laa man sax lu ma la wax affaire gisuma benn supporter Modou Lo foofu dafa am message boo bëgg jàll la foofu waa Camp Modou xam waa Camp Modou Lo xam nga quel problème hmm. nga nit da ngay dugg fenn Modou Lo dafa jël avance te bëggul bëre na ko wax hmm. Modou Lo avance kon kon voilà donc mu mel ni dafa am sunu yeneen naataango yi nga xamante ni ñoom dañoo xaw a dabe xëy na du ñàkk di nga leen mayaale tuuti résumé non séminaire xam na aussi dañuy dañuy entraîné. Ah, waaw dañuy entraîné à 17h euh, donc kon nu bàyyi la nga yeggali rek. voilà fi nga toogoon maanaam message gi dama ne Modou c'est que dañuy wax la benn affaire mu ah, mhm. mhm. wax ñu delloo avance parce que mënu ma concevoir man. Mhm. ñu ne jàkkaarloo. ñu ngi ñëw nga ne ñëw parce que waa Pire ñoo fa nekk di fi suul ay jaas yi ku fekk jaas xam aussi nit soo koy soo ko ñemewul mais lan moo waral nu ragal noonu waa Pikine entre guillemets laa koy tuddee parce que waa Pikine ñoo ñoo fa suul jaasi nga ne moom du mën a egg si. waaw léegi mais tali tali tali fa ku fa suul jaasi laaj naa la ko. moom ma non c'est-à-dire am de bon sens la. bu seen TV intérêt rek a fa nekk ñu ngi a suulee jaasi xam nga daal sëñ bi. Hmm. lépp bi Sénégal la. affaire bi gënul Sénégal que Ama daan que Modou daan dafa gën Sénégal mais ñun li ñu ñaan Ama daan. mais ñu yàlla mukk mukk mukk kenn gaañ ci wala benn te tuur ci ñu ñaanu ko yàlla suñu borom ndax ñu yar ak tegg la ñu xam suñu champion mu yar la am Maguette Mbène Jules Baldé yar la am. fi ñu gis ñëpp ñu yar ay am seen famille am yar am teggin il ñu bàyyi di wax waa Pikine ci waa Pikine ki ñu fa dem ñëpp dañoo sol seen yëre dem violence amu foo woon ko encore une fois dañu bàyyi loolu Modou da bàyyi Sénégalais yi moo ngi tax sax Ama Baldé loolu ça ne passera pas moom fekkee ne bëggul ñëw. nee na bëggul ñëw nga ko forcé où est le problème mu toog këram ñëw ba jaf taxaw fa ba ñu ba nga mu neex la nga ne nga ne nga dem ñibbi loolu loolu dafa yomb. mais yaa ngi doon wax sànq par rapport ak date bi xam naa daanaka laaj yi ñu amoon li ci des daanaka presque ñu ngi ci cappaandoo par rapport ak date bi yow nee nga n'importe quelle date yéen euh, pare ngeen mais ba tey amaguñu amul lu ngeen ciy leeral. da dañ ci leeral sax ci leeral. waaw bi mënut a génn bi combat bi génn saison bi saison bi dañ koy bëri ama nekku fi di xaar benn combat bi duré ay cinq ans ndax ama xaalal day liggéey pour am xaalis dañuy bëri saison bi fekkee ne nu mu ñu bëri wala mboolu nu mu bëri mu dana avance ñu xool leneen mais at bi moom duñ ci gën incha allah. at bi duñ ci gën incha allah duñ ci voilà maa ngi leen nuyu sa sant man la sondeel euh, bu écurie Fallaye Balde porte parole mbëri euh, daa am lu ma ciy wax lu ndaw rek ñun biñ jógee di dem ñun dañoo jóg pour signature. ñu convoqué ñu fi ñu convoqué muy Sen TV ñun Sen TV lañ dem ñu wax ñu quatre personnes ñooy dugg quatre personnes dugg Modou Lo ñu convoqué ko Sen TV Modou Lo dem taxaw ci ay mbedd ñu fay génnee ay ñoom ay paaka ak ay jaas yéen ñu nekk journaliste yi am na ñoo xam dem nañ fekk ko fa mu taxaw ñu génne paaka ñu ne ah ñii de ñoom Modou Lo wu nañ yéen journaliste yi waxal la yéen seen bopp am na ñoo xam ne dem yéen gis leen ñu génnee ay paaka. li may wax ni mu ngi nii sama téléphone mu naa ko génne woon leen ko ndax ci seen site laa seetaane ci site yi laa ko seetaane kon tey ci côté Modou kon tey am na loo xamante ne ñun jóguñu pour yàq ku jóg pour yàq doo dem fi nga xamante ne da ngay dem ba yegg pour signature ki jóg pour yàq mooy ki ñëw ba ci yoon bi ñeme lan mooy ba làmb sosoo ba léegi mosumaa gis mbër mi nga xamante ne ni da nga naan pour ma ñëw signature foofu nit ñëw ay semi ñëw escorté ma pour ànd ma pour ma signature mos ngeen koo gis yéen laay laaj journaliste yi mos ngeen ko gis ah. laaj nañ la ko sëñ. déet dama leen koo laaj ay journaliste ngeen mais am na loo xamante tamit bu leen ko jël 100 euh, pour cent bëgg ñu ko xama àdduna man mosuma gis mbër muy dem naan day dem pour naa ko ay semi ñëw escorté pour mu dem signature signature kese loolu tamit am na loo xamante sa terre à nañ bàyyi yooyu wax yi ñuy fooye kon tey euh, ban message ngam ndax ak lu mën a xew tamit série de violence vidéo yi circulé nañ wane nañ ko te tey xëy na du ñàkk yéen ñii doon bër te tey jii ni bu lépp jàllee yéen a tax ñëpp di déplacé wu te làmb am na lu ko fi yàqoon te tey jii ñaanuñu yàlla ñu delluwaat ci la fi daan am tey ban message nga en tant que mbër mu jëm ci ñi nga xamante ni ñooy ñooy seen i soppe di di ay amateur surtout tamit seeni i supporter Pikine laay waxal ndax Pikine laa am droit wax ak ñoom ñee amu droit wax ak ñoom ndax xam lan lañ contrat moo ñu boole te contrat bi diggante signature la ak biir ak biir làmb ja kon awma lu may wax ak ñoom li may wax ak waa Pikine nag waa Pikine dañ ñoo yónni yaakamti ñu roi lañ ñu wax pour ñu nanguwaat ko andi ko te loolu dañ koy def bu soobee yàlla ak yonante bi kon tey am na loo xamante ne ñun man mi nga xam maa diriger mbëri dama ba ma demee organisation policiers yi sax ba ma demee dama ndax am na foo xam damaa bokk ak ñoom foofu mais damaa présenté wax ak ñoom jël boo yëpp ñi war a dugg ñu dugal leen ñi war a taxaw ma ne leen kaa taxaw fu coow bëggee am ma man maa ñëw ba ci policier ne leen bàyyi leen ma dem lijjanti ma dem ne boo yem leen fii ndax am na loo xamante ne Pikine may nañ ma kàddu boobu kon tey man maanaam defar rek moo ma war mais ñun nag amul benn côté bi nga xamante ne dañ fay yàq wala muy am erreur non signature moo ñëw moo ko andi na ñëw ba yegg si bu ñëwee ba yegg si kay ñu xam ne carrément toj nañ otom wala def nañ dara ñu xam ne carrément kii kat jóg na pour dara mais ko xam tollu ailleurs convocation 19 heures moo nekk ci dossier bi ñun ñu ñëw fa 20 heures moins. yaa ngi dégg ñu ñu dem ñu dem ba nga xamante ba trois heures mbër mi mënta ñëw pour lan. am na loo xamante ne tamit. dëgg la dafa ëpp quoi. kon baax na euh, ñu ñu bàyyi la nga tëj rek. Euh, bon li tey dinaa après waa Pikine yëpp. Mhm. ndax ñun bon a travers ces ces seize communes. Mhm. ak euh, maire de la ville ak képp ku nekk doomu Pikine rek nekk. bon ñu lay wax suñu combat bi bu baax a baax xam ne combat bi combat bu ñor la nag ñor nañu lool sax macha allah. Mhm. et di wax ni. képp ku supporter Ama Baldé ak foo ma nekk ci si àdduna. ñun lay ñaan nga nga nga dal ñu ñu ñu ñu ñu préparer sereinement suñu komba teg ko si yoon. dem jël roi ñu indi ko ñu fete ko incha allah. incha allah rabi kon mbokk yi foofu la ñuy ci kaddu chargé de com écurie Pikine Falaye Baldé ñu nekkoon ci camp d' entraînement Ama euh, li waraloon jotaay wi nag mu di ay précision yoo xam ne ñoom waa kër Ama camp Ama bëggoon nañ koon leeralal askan wi ndax coow li bëri na ci wàllu violence bi waaye coow li bëri na tamit ci face à face bi nga xamante ni démb avorté na kon lii leen fi lii leen leen fii indiloon di leen jaajëfal ci ànd geeg teewlu gi ngeen doon teewlu euh, di leen jox dig daje ci yeneen programme. C'est